abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa ne. xoolal saar yi fi ci alquran yi jàng laay waxal baatu wal fajri ko fekk ci sóoratul qadri ba muy jeex salaamun hiya hatta mat ndaay fajri da ko fekkaat sóoratu baqara wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum xaytul abyadu min al xayti al aswadi min al ñetti place yooyu fajri borom bi tudd na ko foofu beneen bi ci des itam bokk na ci mooy ne kër gi ñi fiy liggéey kenn ku ne li muy am këram la ko yóbbu dundal ak njabootam waaye njiitu réew mi dafa waroon wutal ñi amul liggéey liggéey ñi am liggéey ba pare ñu bëgg leen liggéey loolu kenn du ko nangu kenn du ko nangu de ñi fiy liggéeyee muy ay góor ak jigéen eh, dictateur ñëpp dictateur